asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ku ci ne ñu ngi lay nuyu si sa tur ak si sa sant di ñaan dëkk bi yàlla ji yàlla fi jàmm di wax ni maanaam jamono ji réew mi coow li bari na loolu loolu loolu ba ku ci nekk fi ne nii maanaam feebar bi def nga ko sa bopp bi ba sonal na képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi te yaa ngi koy bàyyi xel bu baax di wax ne ah ñun am na luñ ci xam wax dëgg yàlla mu ne ñaan gi mu nekk sarax ndax am réew bu amaan lu mel ni mag ni dañ daan génne sarax wàcc ay kaamin ñaan ci yàlla loolu jóge fi te loolu am naa lu ma ci xam mu leer man naan comme sama juróomi baaraam yi man nag du ma ab sëriñ du ma ñaankat waaye yàlla moom ay mbiram kenn dafa xamul lii ñuy wax ni képp koo xamante ni boo ko defee ci kàttanu yàlla ak yonent bi yàlla dina la muccal ci lu raw sax balaa bi ndax dañ cee dem waxtaane te benn mag kilifa gu mag expliqué ko wax ko ko lii mu ne ma ah Ablaye de lii de bu ko yàggal wax dëgg yàlla soo ko mënee génn rek joxe ko nit ñi mën cee jot nga fexe ba nit ñi jot ci ndax lii lu am solo la waaw xam naa sarax yi xam naa ñaan bi ma bëggoon leen a expliquer ñaan gi ni ñu koy defaree ak ni ñuy defaree sarax bi te di la wax ni lii ma leen di wax nii képp ku ko def di kàttanu yàlla ak yonent bi feebar bu mës a nekk balaa ci sa yaram bi wala nga dem hôpital bu ne mënuñu ci dara. nga di ko doxaale mu nekk ci biir wara mu nekk ci yaram bi ci kàttanu yàlla ak yonent bi boo ko defee parce que Seexul Xaddim dina rocceeku ba set te dina wàññeeku ci yow loolu loolu loolu loolu da nga gis ak lu lu da nga gis lu changé ci yow lu rëy rëy loo xamante ni ku la ko waxoon sax doo ko gëm yow yaa koy xamal sa bopp te di nga taxaw waxaat ko feneen ne la ma defa ma génn ci lii te la ma leen wax lu am la mu nekk moo wax leen li ñuy defee ñaan gi maanaam da ngay jël bidon 10 litres bidon di litres ngay jël Evian nga tijji ko booyal ànd wala nga booyal fourneau da ci jël juróom juróom-ñaari xal mooy xal yu ndaw nag lay doon jarul yu mag juróom-ñaar nga ciy jël da jël benn da nga naan bisimilah jël benn sotti ci biir jël ñaar ba mat juróom-ñaar nga daal di jël sa kurus boo jëlee sa kurus dangay ngay def cent cinq lixlaas san cinq mooy téeméer ak juróom. juróom ngay njëkkee def def téeméer mais da ngay fas yéene yenn wéet boo paree nga tëfli ko ci ndox mi tëj ko yëngal ko naan ci sangu ci ki nga xamante ne mooy magum kër gi mën na koo def kër gu ne benn bidon di rek mën na koo def dañ ci naan sangu ci boo ci mënul sangu bu kër gi baree loolu buñ ci naanee ñëpp diwu ci ci kàttanu yàlla boo leen ko defee waxuma la feebar bi mais feebar yi nekk seen yaram te mënu leen koo faj di ngeen gi sax mu dañ waxuma la ak feebar bi ndaxte lixlaas ñett lixlaas mooy kaamil te dañu waroon a wàcc ay kaamil ci réew mi te wàcc nañ ko ba pare li ci des nii ku ci ne sa bopp ngay muccal te xam ni kër gu ko def lu mel noonu moom dina wuta maanaam dina romb sa kër lool lool te du la jege te lu dul lii sax balaa bii sax mënul ci yow dara waaw lépp luy balaa file lay baax ndax yàlla buñ ko ñaanee mu may ñu te suñu borom képp ku ko tagg ci kàttanu yàlla ak yonent bi ña koy tagg moom lu mel ni balaa wax dëgg yàlla xam naa ni dana leen romb te boobaa dinañ gis réew mi avancement bu rëy dina fi am te nit ñi dinañ amaat jàmm te seen xel dina dellu ci suñu borom ndax fi ne nii xët-xët gii ñu nekk lépp maanaam sunu ngëm yàlla ak sunu jaamu yàlla dafa desa desa desa desa des ba nga xamante ni lu dugg rek dañuy fëq lu dugg fëq ñu ndax nit ñi talatuñ dara lu dul àdduna waaw yàlla nag day dem ba toll jamono joo xamante ni day wane boppam wane ni moom dafa am wane ni moom lu am la te moom moo fi ne te daa toll ci jamono ji te xam ne du Sénégal rek waaye balaa yi muy wàcce ci réew yu bari na loolu loolu loolu loolu te lii buñ ko defee dinañ mucc ci lépp loo xamante ni balaa la ndax nekkul balaa bi donc moo fi ne balaa bu bu war a wàcc ci réew mi yeneen ak yeneen te bu buñ fi dégg bàyyi dinañ ci teg suñu bët balaa boobu nag lii buñ ko defee dinañ mucc ndax dee léegi si dafa gaaw jinne ji bari nañ ci réew mi nit ñaa ngi tuut deret sarax yu bon yi ñuy def ci réew mi yooyu yëpp day nekk loo xamante ni dafa am xeetu rab yoo xamante ni buñ xasee ba dugg ci réew commencé dugg ci dëkk dëkk boobu du am jàmm te day wàññi jaamu yàlla nit ñi te nit seenu jaamu yàlla buñ wàññeekoo yàlla day wane boppam te loolu moo nu dal loolu képp moo nu dal du leneen ndax jamonoy pes bi mu fi ñëw fii ci réew mi jamonoy pes laa lay wax de bi mu fiy ñëw ak njéeréer bi ñuy yàq dëkk bi sëñ Fallou génn woon ay ñaan ñaane ban ko fa defee gisatoo leen ko fi maanaam képp koo xamante ne da nga am fas yéene yéene jaar nii dem tuubaa mën nga takk say dàll jaar nii dem Touba te xam ni képp kuy jaamu yàlla sa bakkan jóge fa. moo gën ngay def naka su dul noonu sa bakkan jóge fa te nit ñaa ngi xëy di def loo xamante ni buñ ca deewee moom dootuñu ko nettalee ndax du xam fu ñu koy waxee ndax sa dur ngeen dégg ku de kuy def lu bon jaar fa de kon nag kuy def lu baax di sant ji suñu borom jaare fa faatu loolu ak kent la man de kenn du ma fa njëkk wax dëgg yàlla kenn du ma njëkk Tuubaa gi kenn du ma fa njëkk man damay dem de tey na nit ñi dem na nit ñi dajaloo di jaamu yàlla jaamu yàlla moo yorum réew. lu mel ni bu duggee ci dëkk nit ñi dañoo war di jaamu yàlla dañoo war a taxawu dajaloo jaamu yàlla yàlla mooy rey yàlla mooy rey nit balaa yi ñuy wax nii yépp da ngay ñaan suñu borom musal la ci te xam ni képp koo xamante ni nekkoon nga ci loo xamante ni neexul woon suñu borom wala bokkoon nga ci ñi nga xamante ni doon nga jéem a fay lislaam moom bu yaboo nga bu yaboo nga pare te xam ni kenn mënu laa faj lii ma leen wax moom bu yaboo ngeen bàyyi ci xel te maa ngi. jéggulu ñëpp nag di sant ñëpp maa ngi jéggulu ñëpp di sant ñëpp li may tëjee mooy sarax ci boroom kër gu ne da ngay peese sa poids boo peesee sa poids bu dee cent kilo la danga koy jënd cent kilo ceeb ak cent kilo dugub nga fas ci aajo yëpp ak njaboot gi ak réew mi balaa bi ak jàmm yàgg ci réew mi nga génn ko boo koy saraxee da xool néew di doole ñi nga xamante ni buñ lekkee buñ añee du ñu reer wala buñ lekkee du ñu añ du ñu reer ñoo ñu leen am droit jox leen ko sarax bi waxuñu leen ngeen koy séddale ci mbedd yi da ngeen di dem ci ñu néew doole ñi ngeen yóbbul leen ko ñu ñaan réew mi jàmm am ci ndax ñi nga xamante ni yàlla dafa néewal seen kàttan ba amuñu doole maanaam kon doole ji ñuy wax ne xaalis bu bari buy mën a lijjanti nit ñi yoruñu ko yàlla may na leen ñaan ndax ci seenu muñ bul ñaanee lii dafi jóge ci kàttanu yàlla ak yonent bi ñu bàyyi ci xel bu baax jërëjëf